ñu ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di ñaawlu lu xew Sacré Cœur ñaaw na trop trop trop trop lu ñuy def ndaw si man je demande dans quel Sénégal sommes-nous Sénégal bi bi am léegi ak Sénégal bu njëkk ba yaa une grande différence am na différence léegi daal Sénégal li fa xew mooy bi réseaux sociaux yi génnee ba léegi képp ku bëgg a toroxal nit wala képp ku gis lu bonu nit ci réseau sociaux yi nga koy yóbbu mais pour lan pour lan lan moo ko fi jar àdduna bi jeex na ba pare toroxolante bi waxante lu ñaaw xawi wante sutura mais sa sert à quoi ban njëriñ la am laay laaj mais boo gisee nit mu def lu bon mais jarul sax yóbbu ci réseaux sociaux yi mais suturaal ko mais yàlla moo njëkk suturaal doomi aadama suturaal jigéen mais jigéen moo jur ku ne jigéen moo jur yonantu moo jur yu képp ku ñëw ci àdduna jigéen moo la fi indi mais wax dëgg yàlla war nañ mën a yërëm jigéen ñi di leen xoolee beneen bët di leen suturaal doomi aadama ci boppam dafa foor rawatina ak jigéen kenn ku nekk boo demee bay def jigéen lu ñaaw war nga xalaat sa yaay boo demee bay def jigéen lu ñaaw war nga xalaat sa sœur war nga xalaat ne di nga am doom bu jigéen te ku ko defoon loolu du la neex ku ko defoon sa yaay du la neex mais gis nga benn jigéen mu dugg ci kër di sàcc sàcc baaxul dafa xaram mais owal police police daf liggéeyam mais mënuñoo nekk di fajal suñu bopp kon fan lañ jëm kenn ku nekk su fekkee da ngay fajal sa bopp te booy fajal sa bopp nu mu gën a ñaawee ngoo koy defee rakki jàmbur yaay jàmbur magu jàmbur bàjjanu jàmbur nga jël ko sàcc na nga filmer ko génne kanamam ñépp di ko gis nga dugal ko ci réseau sociaux yi te fu nekk dina fa àgg kooku àddunaam sax mën na yàqu ba dootul mën a dundati dund bu baax est-ce que xam ngeen lan moo tax mu doon sàcc est-ce que wóor na leen ndax dafa bàyyi njaboot ci kër ga te amuñ luñ lekk xamul lan lay def mu dem di sàcc te pourtant am na ñoo xam ne ñu ngi dem di jaay seen bopp am na ñoo ñu ngi def leneen ak leneen mais boo gisee nit di def lu bon doo ko toroxal doo ko weer danga koy oo ñëw nga waxtaan ak moom ne ko lan moo la xiir ci lii soo ko mënul nga oo ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu boobu wàllu sécurité bi muy police wala gendarmerie ñu ñëw jël ko yóbbu mais nit ki ñëw di sàcc ngeen jàpp ko summi ko génne ween yi génne yaram bi yépp ba pare jël kanam gi génne ko di ko toroxal avec ça ñu ne Sénégal dina jëm kanam ak yu ñaaw yi ñuy def yépp koo ci wax mu ne la man jullit la ah loolu ban njëriñ la am tubaab yi créer réseaux sociaux lu baax rek lañ ciy def duñ si def lu bon mais ñun dañoo jot si réseau sociaux rek di ci yàq àdduna nit ñi su nit juumee filmer boppam def comme nu ko ndeyam juree woon di ko yónnee jëkkëram wala di ko yónnee faram juum ngeen jël ko dugal ci réseau sociaux yi am na ñoo xam ne dañ lay bëgg a bett sax pour filmer la nga def taati neen ñu jël ko dugal ci réseaux sociaux yi am na ñoo xam ne mbedd mi suñuy dox luñ ci manti gis dañ koy filmer dugal ci réseaux sociaux yi lu ñu gis ci kër nit ñi dugal ko ci réseau sociaux yi léegi ana sutural gis nga ku suturaal nit yàlla dina la suturaal waaye képp ku fi nekk di xaw yi sutura doomi aadama yi ak di toroxal doomi aadama yi ci réseaux sociaux yi nii ak koo manti doon billaahi wallaahi watallaahi bala ngaa dee di nga ko gis doomi aadama dafa war di def lu baax di wax lu baax Sénégal ñun kenn xamee wuñu woon yu ñaaw yu bon yi nii sutura lañ ñu xamee woon yar teggin mais heure bu ñu gisee nit muy def lu ñaaw yàkkamti nañ ko ñu jël ko exposé ko ci réseau sociaux yi mais loolu lan la mën a faj loolu lu dul yàq àdduna doomi aadama yi ku suturaal nit yàlla dina la suturaal mais ku suturaalul nit yow doo am sutura ba ba ngay sàngoo suuf te war nañoo xalaat de kenn ku nekk bés dina ñëw ñu gas ba mu xóot dugal la ci biir bàmmeel bi te su boobaa say jëf rek moom moo lay wëllu foofu noonu su fekkee jëf ju rafet la nga am chance bu ñaawee doo am chance mais boo gisee nit muy def lu ñaaw nga suturaal ko mais xaaral nit ki ba mu def lu rafet nga jël ko exposé ko dugal ko ci réseaux sociaux yi loolu moo ëpp njëriñ ñëpp jëriñoo ci mais lu ñaaw nit nga jël ko teg ko ci réseaux sociaux yi ban la am que ça sert ban njëriñ la am laay laajte chaque jour ñu ngi dal ci kaw nguur gi naan nguur gi nii mais ils sont issus de nous ceux qui nous dirigent ils sont issus de nous ñun ak ñoom rek ñoo yem parce que ci ñun lañ génnee li moo tax Sénégal du dem fenn. parce que jëf yi bon ñuy jëf ci réew ma dafa jéggi dayoo te fekk ñuy continuer di toroxal doomi aadama yi nga xam ne yàlla da leen a fonk yàlla dafa fonk doomi aadama doomi aadama du caaxaan wala xadd karam naa ba bani aadam wa hamalnaahum fil barri wal bahri mais loolu la yàlla wax bàyyi leen ci xel bu baax a baax dee leen suturaal nit fonk doomi aadama yi defe ngeen jël benn jigéen ñu ne daf doon sàcc ngeen taal seen ay caméra yéen ñëpp di ko filmer ba mu neex leen def ko seen jëf yu ñaaw xalaatu leen ci lenn lu dul dugal ko ci réseau sociaux yi ñëpp di ko gis lii mën na ko sax rey traumatiser ko parce que fu mu romb dañ koy xoolee loolu lan moo ko jar tey jii ku ko oowoon kenn maire boobu doon wax ci suuf tey moom yaay la noon na leen a interdire li ngeen doon def parce que li ngeen doon def baaxul moom mënoon na ko oo waxtaan ak moom laaj ko lan moo la xiir ci li ngay def mais c'est ah billaahi wallahi watallaahi ma waxaat ko képp ku nekk ci àdduna bii nii di toroxal doomi aadama yi di xaawi sutura doomi aadama yi di toroxal nit ñi guddeeg bëccëg subaa ngoon nga xam ne yow sa lépp loolu la nga jàpp ni di nga am jàmm ci sa àdduna billaahi da ngay nax sa bopp képp kuy xañ nit ñi jàmm képp kuy xaw xaawi sutura doomi aadama yi doo am jàmm ba ba ngay dee te fii nii li nga jëf rek moom moom lañ lay fay ci récolte ce que tu te gis nga jëf lu rafet lu rafet moo koy fay hal jazaul ihsan illal ihsan soo defee lu rafet yàlla da lay fay lu rafet soo defee lu ñaaw lu ñaaw ngay am fii kenn ku nekk lu nga ji rek ngay góob nañ jéem a rafetal te suturaalante suñ bopp bëggante soppante loolu moo amoon Sénégal bu njëkk ba loolu lañu xamee woon loolu mooy suñu mbaaxu maam ñun waa Sénégal waaye léegi Sénégal gi xew léegi man xamatuma ci dara waaw te lii nag buñ ko bàyyiwul billaahi wallahi tallahi duñ jóg ci